ndimbal bi ñu indi tay fii ci district sanitaire bi ñu ngi ko xayma ci fukki carton eau de javel fukki carton savon ay carton madar euh, ay lave-mains maanaam li ñuy raxasoo moom robinet pour ñu éviter di dugal loxo si raxasoo ci benn récipient ay poubelles euh, mais loolu pour district sanitaire bi la waaye 18 postes yi des yëpp poste de santé yi nekk ci commune Kaolack yëpp jox nañ leen ndimbal ndimbal loolu nag ñu ngi ko tibbee ci ndimbal li nga xam ne mairie de kaw Kaolack wut na ko mu nekk juróom fukki millions yoo xam ne ñaar fukk ak juróom yëpp mu ngi dem ci produit de désinfection yoo xam ne ak ay matériel de nettoiement ak ay produit de nettoiement yoo xam ne tey am na sax lu bokk ci li ñu indi mais li ci ëpp ci loolu euh, li nga xam ne service d'hygiène da koy liggéey souvent muy pompe dëkk bi pomp marché yi bu ñu ko raxasee ba pare loolu mooy li premier lot boobu deuxième lot bi mooy li nga xam ne moo ñu tax ñu mën a jënd li nga xam ne mooy stock d'urgence ndax soo xoolee Sénégal tey ñu ngi génnee plus de cinquante millions milliards pour def ay stock yoo xam ne stock d'urgence la feebar buy wàllee nag bu amee ñu mu dal dañuy aar ña nga xam ne dalagu leen muy prévention képp koo nga xam ne am na ak ñoom contact ñu ngi leen di xool di leen saytu di leen wax ñu toog ci seeni kër bañ a génn li gouverneur waxoon rek laay waxaat nit ki soo ko nee bul génn sa kër dana am loo ko jox te loolu yoo yoo loolu nguur la ko yàlla teg moo ko war a tegoo nguur nag tey ci lag defe naa mairie ak service administration territoriale bi ñoom ñoo bokk liggéey boobu moo tax ñu wut benn stock d'urgence ci juróom fukki tonn ceeb fukk yi dem ci gouvernance bi moom it dana ci am ñu mu dimbale ndax liggéey boobu saytu boobu ñoom ñoo koy def ñoom ñoo gën a xam yi ñom tamit dinañu dem ci daara yi mais ñun it dinañu def sok bobu parce que kenn xamul ëlëk lu yalla di def ñu ñaan na yalla def jamm mais su lolu amé té ñaanuñu ko aussi ñu xamné natu la jamm la ko yalla di tek nangu nañ ko ñu taxaw ci li ñu wara taxaw lool bu boba aussi pour fof rek lay demaat fi mu wara dem rek lay demaat ñu bolé ci diwlin bolé ci sucre lolu moy benen montant bi nga xamné moñu tax ñu mëna tay moñu permettre ñu mëna am ce stock la loolu mooy li nga xam ne mairie bi prévoir na ko tey ñu jël cër bi nga xam ne moom la district sanitaire bi moom mu war a jël cëram ba pare euh, jël poste de santé yëpp lépp lu ñu jox poste de santé dañ ko doubler fii ci ci district bi loolu mooy loo bi nga xam ne gis ngeen ko mu nekk ay sabon nekk eau de javel nekk madar nekk ay lave-mains nekk ay poubelle loolu la ñu indi fii tey. ñu ngi sant di gërëm madame Maria Sarr ci geste bi nga xam ne def na ko tey euh, duñ ne boulette parce que def na ko fi defati ko bi entre la mairie et l'hôpital c'est toujours comme ça elle est venue ici à plusieurs reprises apporter des dons au niveau de l'hôpital donc dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal yàlla lu mu ci bëgg moo xam yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla may donc li nga xamné ne def na ko dafa ñëw rek daal di dollil nga xamné dispositif bi nga xamné fekkon nako fi dispositif bobu moy ay point de lavage des mains yo xamné defon nañ ko fi pour mëna jël maladie jël mëna jël usager en même temps donc li nga xamné ne def na ko su ñëwee tay day ñëw na dimbali ñu ci lool day ñëw fekk ci dimbali ci lool ndax l'état état mënut a def lépp hôpital aussi mënut a def lépp donc donateur yi comme président de la république nu défé appel bi moom su ñëwee tey fekk ñu si di andi ndimbal boobu dañ koy sant di ko ci gërëm. dama bëgg lool ci teewee lu rafet lii nga xam ne moom la madame la maire def euh, te mooy xeeti ndimbal yi nga xam ne moom la yëkkati euh, di ko jox ak sa askan wi tey nag ñu ñëwoon ci district nga xam ne kon loolu benn fànn la rek ci li mu liggéey. waaye dama wax ne moom maire la waaye tam ministre la wolof mooy wax ne bokk ci coow li xam li xew moo ko gën moom position boobu daf ko may du bokk ci coow li waaye dafay xam li xew ku xam li xew nag waroo juum ci ni ngay doxale doo def ba pare ñu ne juum na moo tax moom juumul xam na li jàmp ci mbir bi lan la moom moo leen ko waxal boppam ci làmmiñam benn bi mooy fagaru ci wàllu fagaru boobu moo tax mu tànn xeetu produit yi mu tànn pour dimbale njaboot gi dimbale néew gi doole ñu des di dogale jàngoro bi waaye beneen fànn bi tam ni mu ko waxee mooy yëkkati dund yëkkati dund jox askan wi ndax gannaaw dem beeg dikk bi dafa wàññiku ki nga xamante ne ni bi ñu la tënkul woon sax ci dem ak dikk sa loxo jotul sa gannaaw say dem ak dikk bu wàññikoo wala ñu tënk la ci bërëb ku nekk xam na ne mën ngaa am jafeñ-jafeñ ci sa dund dogale loolu moom moo tax mu ne xëy na cet gi baax na sellal dëkkin bi dunduwaay bi baax na waaye tam dimbale nit ñi tuuti ci seen wàllu njël loolu am na solo